ku daa junjoo rek jéem a xam sëriñ bi te jéem ko dund jéem a xam sëriñ bi te jéem ko dund sëriñ bi mën nu koo xam ci loolu nag am xaw xawsu wa xilaal suñ lépp jëmale ko yàlla xawsu wa xilaal nag mënut am ci loolu dëddu adduna dëddu adduna buñ ko dee wax ñàkk a lekk du ñàkk a naan du ñàkk denc du ñàkk àdduna fam la mu ca ca gën a gàtt ma ngi da ngay jublu yàlla te dara àdduna du la saf bu loolu amee nga daal di nag eh, nekkal bi yittewoo ko jéem a xam aw doxinam mën noo sëriñ bi mën nu koo liggéey lu lu lu kawe am xas wa la te def ko muy suñu yitte di ko di ko jàng di jàng doxinam di ko jéem a xam di jàng doxinam loolu sëriñ bi moom raw nam xel waaye nag lu ma tax xamle xamle na ko waree na aw doxinam itam lan mën nañ caa xamee lañ ca lañ ca lañ ca àttan sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi boromam nag moo ko tànn bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boroomam di woon jaam ñi niñ war a jaamoo suñ boroom tum kem kàttan loolu kon loolu moo fi moo ci bàyyi moo ci war a bàyyi eh, sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi rek waaye borooma ko tànnal nag bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boromam wane ci nañu war a nekkale nañu war a jaamee suñ borom loolu nag dara da ci lu leen a jiitu xasu wajhillah jublu jublu suñu borom ñu jublu ko suñu lépp wan gannaaw lu dul moom beddu adduna te daay adduna bañ noo saf mu nekk ci nag nekk ci ni mu gën a la sëriñ bi nekk ci ni mu lim li mu fi bàyyil kon lanu ci war a bàyyi rek moo di lim nu fi bàyyi lim bàyyil suñ lépp jëmale ko suñu waroom suñ lépp mu jëme ko nag ci sant sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko liggéey bi nag moo di nekkal ko ci lim lim lim lim bëgg moo di sax dàkk ci yaamu yàlla ci sunu sunant bi sax dàkk ci yaamu yàlla ci joxe suñ lépp dara àdduna bañ noo saf loolu lim ñuy indil du ñu tal dara lu suñ borom ak àllaaxira ka nu jëm du ñu tal aduna du ñu taal suñ bopp du ñu tal aduna waaye nag ni li tax suñ borom tànn sëriñ bi mu nekk ci biir jaam ñi nekkal ko ci di woon jaam ñi nañ ko war a jaamoo loolu moo nu ci bàyyi loolu rek moo nu ci bàyyi kon nu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax nan góorgóorlu ci nan góorgóorlu bu baax a baax ci nan mën a sant sëriñ bi ci nan ko mën a nan ko mën a liggéeyee ci li nu fi bàyyil muy sax dàkk ci jaamu yàlla rek ci suñ lépp nag. na ko suñu borom diglee suñu kem kàttan na mu ko teree nu doo ko def suñu kem kàttan na suñu borom bëgg du ko bëgg suñu kem kàttan lam bañ du ko bañ suñu kem kàttan sax dàkk ci loolu loolu moom rek lañ mën a liggéey la sëriñ bi moom ko mën a sant itam kon nañu góorgóorlu bu baax a baax dara waru fi ne waru fee bàyyi loolu loolu nag ci kattan suñu borom ak xereñam du duñu yàqal dar lan war a am ci àdduna ci ci yiw duñu xañ dara lan war a am ci yiw te loolu rekk nag itam mooy tax nu mën a sëñ seen sëriñ bi mooy tax nu mën a sax ci liggéeyal ko كنا نقول قول باخ باخ باخ صدق تلمنو في بعيل موني دفن سن لب موني سامو توال يب بيك بيتي ادنا بارني فك لول واي كو صح دك بون صح دك تي li ñu fi sëriñ bàyyil warat noo tiit dara dañ koy tënk rek ci mu sax dàkk ci wéetal yàlla sax dàkk ci dooloo sëriñ bi di gëm a te nag ci li mu nekk loo buñ ko defee du war nu tiit dara duñ jaaxle ci dara duñ ragal dara te dara mu du man ci woon ci noonu dara kon loolu mooy li ci am solo góor góor bu baax ci nekk li sëriñ nekk ci lekk sëriñ nekk ci li sëriñ bëgg ci nekk ci li mu nekk loo te wéetal wéetal suñu borom gën a wéet waxtu wu ne ci biir bitim ñu gën di wéetal suñu borom ci lépp di gën di doyloo sëriñ bi itam nag di gëm borom ci lépp loolu mooy li nga xam ne eh, buñ ci buñ ci buñ ci góor luñ ci gën a góor góorgóorlu rek gën a yëg suñ bopp ci gën a moom suñ bopp ci tënki-tënki adduna ak gàllankoori adduna lu luñ ci gën a nekk rek di gën a moom suñ bopp ci ci wàll googu tënk-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna te bari na lool waaye loolu rek moo ñu ci mën a musal kon bu nekkee ci loolu loolu te li muy andil mooy taxi àdduna ak taxi àllaaxira rek muccu àdduna muccu àllaaxira defaru àdduna defaru àllaaxira loolu rek la moo moo moo ci moo ci dikkal kon noo ngi sant ñëpp di balu ak ñëpp dénkaane nun ñëpp nu balonte ak bu xas wajhi laay amee jubbu yàlla bu amee lu tootal dara loolu yàlla ak alaaxira ku tëlu ku tëlu ku tëlul dara nag loolu yàlla ak alaaxira sa lépp ak yiw la ndax dootoo xëccoo dootoo xëccoo ci dara àdduna dootoo jëmee ci sama romb jaam jenn yéene ji ñaaw waxuma laa jafe ga loolu noonu rek la deme demee góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci gën a sax dàkk ci wéetal yàlla gën a sax dàkk ci jaamu yàlla loolu mooy ci la lépp nag suñ ci yiw adduna suñ yiwu adduna ak si yiwu alax suñ yiwu alax lépp ngi ci loolu kon jërë ngeen jëf nanu góor bu baax a baax a baax te gannaaw ban sante cant goo xam ne yimul fenn ndax ban suñu borom booleeg sëñ bi rek booba la suñ ajo mel na ni suñ aj booba la suñ ajo faju ndax sëñ bi doy nañu ci lépp doy nañu ci àdduna doy nañu ci àllaaxira nit dafa mënut a ñàkk nekk nekk ci dara kon nu nekk ci jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ndax noonu la bëgg ci noonu bu ñu ko defee rek suñ lépp yéwén jërë ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay yéen weesu ñoo ci sant bu baax a baax a baax a baax ndax taxawaay yi mat na rafet na jub na loolu lépp tawféex ju ñu am rek moo nu ko may muy tawféex sëriñ bi sëriñ bi tawféexi boroomam la kon tawféexam mu ngi womm ci lépp loolu kon sant yàlla rek moo nu war ak nag jéem a nekk ci loo xam ne ci leen ko mën a sante ci leen ko mën a liggéey la jërë ngeen jëf. góorgóorlu bu baax bu baax ci muuri koor yi ndax yitte juree la ñu ànd koor gi kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax suñu kem kàttan